nu ñu ko mënee comprendre c'est simple Ayib dafe moom la Ousmane Sonko choisir pour mu nekk son mandataire. Mhm. donc Ayib Daffé moo am la responsabilité dem jëli les fiches de parrainage de Ousmane Sonko donc tout le processus ba ci dépôt. Mhm. caution bi au niveau donc de la caisse de dépôt et de consignation. mais il s'acquitte pleinement de son devoir et il le fait très bien. ah mais Ani alors est-ce que war nañoo xam ne euh, du antu dans la mesure où fiche yi bañal nañ leen ko te lii ce serait une suite logique. kooku sa wax la sa xalaat la. non non non li xew laa wax. non non non waaw mais lii xew daf lay tardel c'est-à-dire que xam nga même dara mun na xew. Mhm. mais yow. am na nooy doxee ak sa xel. léegi noo ko xalaatee donc. question de bon sens. c'est-à-dire que moom lu mu war a def moom la nag et la suite apportée euh, la suite boobu. maanaam dañ ko dañ seen xaalis. am na preuve xam man si yow laa déggee nii delloo nañu xam mais c'est un communiqué officiel de la CDC mais CDC bu ñu ba quelle la valeur du communiqué de la CDC ban valeur la mën a am yow dëkk bi tey dafa toll foo xam ne la valeur même de la parole de la première instance pas de de porter wax man nag parler du président de la République quand même c'est triste ce qui se passe dans ce pays là yow kaddu CDC mën naa ko téye ba di koy valoriser. ne mën na nekk. Ayib. Mhm. jusqu'au dernier communiqué. oui mu ci rajo yi la dëgg ni delloo nañu xaalis bi ana xaalis bi fu mu. n'ont rien reçu. mu ci nit ñi la dëgg ni delloo nañu xaalis bi une façon de dire que gisagul gisagul xaalis bi ensuite c'est une question même de bon sens yow su la wóoree ni dëgg-dëgg li nga wax gëm nga ko. Mhm. xam nga les gens ils sont tellement nuls que même pour sàcc mënuñu xoolal lii yow su la wóoree nii man su fekkee gëm nga li ngay wax en terme de pour ma mun a déposer. Mhm. yow bi ñu yore CDC yor nga liste yor nga liste boo xam ne. ñi war a déposer foofu la ñu nekk. Mhm. xanaa man su ma ñëwee question de bon sens et d' intelligence ngay jël sama xaalis lu toll ni trente millions. nga vérifié ça c'est une ça c'est une guichet bi la woon rek guichet bi la amul guichet bi les techniciens c'est juste quelqu'un boo oh, xam ne oh. il wala il encaisse l'argent après nag vérification yi la xam ne jaaduwul déglu ma ne te substitue pas pour être le porte-parole des gens non non c'est ce qu'ils ce qu'ils ont di pour te dire encore une fois que yow su la war a nit ci intelligent mhm. soo may fenal dinaa ko sentir parce que le problème bi mooy lan su fekkee man je suis intelligent même bu dee damay fen dinaa ne non sooy ñëw pour fay au niveau de la caisse première condition dañuy vérifier pour seet est-ce que c'est tour mi ngi ci liste bi ou pas caisse bi toutes les caisses dama leen ni koy jox léegi c'est à de l'informatique da ngay cliquer sa tour bu génnulee man ne sa waay sa tour bokkul mhm. or il se trouve que d'abord la première fois foofu la nekk ñoom amuñu ce pouvoir là pour seet kan moo war a déposer a déposer. léegi yow euh, déglu ma déglu ma ñoom amuñu sax pouvoir boobu. Mhm. c'est ñoom ñoo bëgg a joxe seen bopp. pouvoir boo xam ne yàlla joxu leen ko le prophète joxu leen ko. kenn joxu leen ko c'est sur la base de cette liste ci pouvoir qu'on leur confère. da ngay seede wala da man je dis juste ce qu'ils ont dit. moom laa lay wax mais ce déglu loolu yaa ko wax fan ngay nekk toujours pour que ngay déglu ñoom lu ñuy wax ñun lan la wax. moom laa bëgg a dégg nii. voilà ñun lu ñu wax lu leer la yow pouvoir boo xam ne kenn joxu ko kenn jox la ko. loolu yow yaa ko wax mais loolu moo am jox ma benn disposition code électoral bu ne CDC am na droit pour mu arbitrer wala pour mu valider ou non pas du tout amuñu ko ils n'ont pas ce pouvoir. kan moo am pouvoir boobu. mais pouvoir boobu code électoral rek boo ko définir c'est tout.